salaamaaleykum mbokk auditeur ak auditrice su Rewmi FM dal leen a jàmm seen émission sans filtre jo jotaay ndaw ñi la fii ci Rewmi FM lay am mercredi bu jot 15h jàpp 16h euh, comme ni ñu koy defee saa su nekk ci suñu programme ñëpp xam ne ñu ngi dem. ci ay euh, élections euh, locales janvier euh, deux vingt deux weer bu jot dañuy tànn ñaari candidat yoo xam ne ay ndaw lañu ñu war a jëm ci jongante élections locales yooyu li tey ñu dalal Abdoulaye Ndiour membre du directoire PLDAS nekk coordinateur de la fédération des enseignants et responsables des jeunes foofu ca Thiaroye moom lañ fi dalal lu ñu fas yéene waxtaanee suñu thème du jour moo di. la jeunesse à l'assaut des locales quelle chance pour elle maanaam euh, ndaw ñu nu ñu songee élection locale ndax am nañu chance pour ñu génn ci euh, loolu lañ fiy fas yéene euh, waxtaanee mbokk yi waaye laata ñuy dalal gan gi ma jox kàddu gi Mor Fall mu nuyoo indi rubrique actualité. voilà donc Sylvie maa ngi leen nuyu di nuyu suñu invité du jour di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo taamu déglu li nga xamante ni mooy Rewmi FM dañu suivre aussi à travers euh, plateforme digitale lu ci mel ne Rewmi officiel ak Rewmi point com sur Facebook donc leen jaajëfal di leen euh, jox seen wàccuwaay saa su nekk di ñaanal ñëpp jàmm. Mm-hmm. Euh, lu gën a fës ci bés bi. waaw li gën a fës tey moom mooy information bi nga xamante ni moom moo génn jaaxal yenn sénégalais yu bëree bëri li ñu doon wax ne le président ñoom dañoo jëloon dogalu ne dañuy daal di euh, teg li nga xamante ni moom mooy euh, écoles yi yëpp ñuy commencé leen di exiger li nga xamante ni moom mooy ay tenues ba ñu mhm. waxoon jël nañu toll ci 4 milliards euh, génne ko ngir teg ko ngir ñu mën a exiger loolu nga xamante ni moom mooy loolu di ay tenues mais nag malheureusement tey suba ñu génne benn information ñu ne yooyu tenues yi nga xamante ne du sa génn sax mais dayoon na sax disponible lañ wax mhm. mu nekk loo xamante ni sénégalais yu bëri euh, artisans yi ba doon nañ ci kaas nee nañ euh, méthode bi nga xamante ne noonu la ko Macky Sall bëgg a defee euh, bu ñu moyul loolu nga xamante ne moom mooy seen tenue yooyu du mujj àntu Mhm. donc may nañ dëgg ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy artisans yi wax ne lii benn projet boo xamante ni juste c'était juste pour pour euh, neexal ñeneen ñoo xamante ni dañoo dañoo frustré woon mhm. mais projet nekkul projet boo xamante ni day day day antu mhm. mu nekk loo xamante ne nag fi mu nekk nii euh, daanaka euh, c'est c'est juste pour pour pour pour day jox à chaque fois dëgg ñi nga xamante ñoom ñooy ŋàññi nguur gi parce que mënuñoo ñu ne jël lañ 4 milliards pour def ko ay tenues ñu dem ba ci ba ba à quelques jours des euh, euh, des ouvertures ñu ne ñu tenue yooyu du disponible ci ci li nga xamante ne mooy ouverture yi mhm. te moo nañ ko woon a lijjanti parce que ñaw tenue je pense que c'est pas aussi fameux parce que buñ ko buñ ci impliqué woon ñëpp ñu ci war a impliqué je pense que tenue dina pare à temps mhm. école yëpp leen jox la war a jox mhm. mais jël 4 milliards sànni ko ci fenêtre bi comme ça ñu à quelques jours ñu naa ñu ay tenue du du pareek euh, niñ ko war a confisqué moom moo am problème euh, affaire tenue sénégalais koo wax mu ne loo xamante ni juste xaalis bu ñu sànni fenêtre la mais tenue yooyu xam nañu du ma sa nekk mm. ci suba si tamit euh, benn amaat fa nga xamante ni mooy université euh, étudiants yi nee na ñoom duñ mës a nangu ñu leen di forcé li nga xamante ni mooy mooy vaccin parce que mm. vaccin dañoo waxoon bu école ubbi euh, corps professoral bi ak élèves yi ñëpp dañuy vacciné ñu soog dem ci classe yi mm. université moom ñoom ne nañ lànk nañ kandaar ne ñoom du ñu mës a nangu ñu leen di forcer li nga xamante ne mooy vaccin mm-hmm. donc mu nekk ñaari euh, information yoo xamante ni ça touche l'éducation mm-hmm. euh, mu nekk lu déplorable loo xamante ni euh, tenu yu ñoon wax mm-hmm. malheureusement ren du am vaccin yi ñoon wax ne dañ koy dañ koy taxawal ngir mën a daal di préparer ngir xeex mbas mi ci professeurs yi ak ñi nga xamante ñoom ñooy élèves yi li suba si ñee que fii ak ne dinañ taxaw ne a nangu ñu leen di li nga xamante ne mooy ay vaccination yoo xamante ni je pense que fi mu nekk nii ñi ngi nekk ci tendance baissière. Mhm. Euh, bu bu bu bu xaw a consistance tuuti. merci Mor Fall ça tombe bien ndax suñu invité moom enseignant la. Mhm. Euh, je pense que il est mieux placé pour jox ñu ci avis am Abdoulaye Ndiour ñu ngi am mbégte kontaan te dalal la suñu euh, émission ñu bàyyi la nga nuyoonte mbokk déglukat yi balaa ngay joxe sa avis ci actualité yi. merci Sylvie maa ngi nuyu ñëpp di di di di aussi rafetlu ah. opportunité bi ma am. Mhm. donc yow si émission sans filtre. Mhm. donc am na solo donc aussi dinuy aussi euh, euh, waa Thiaroye Gare fa laa jógee di sama gox donc maa ngi maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. aussi di aussi les responsables du parti du PLD a commencer par Omar Sarr euh, qui est le président du PLD. maître Amadou Sall qui est le vice-président du PLD. Mhm. et responsable politique aussi à Thiaroye Gare nekk suñu coordinateur nekk suñu suñu responsable. Mhm. aussi di ñu tamit tous les jeunes euh, de Thiaroye Gare tous les responsables de la fédération de de Thiaroye Gare. Mhm. ñu bokk ak euh, liggéey bi quoi. merci. waaw euh, dégg nga ni ko Mor waxee dañu ne woon xale yi école publique dañuy sol tenue jël ay milliards xëpp ko ci mu juróon coow tey ñëw nañ dellu ginnaaw nee nañ dara du ci am xale duñu waaw bon en fait xam nga euh, man je suis à l'aise pour pour parler de ça. Mm-hmm. parce que euh, quand l'idée a été euh, pour la première fois par le ministre de l'éducation nationale. Mm -hmm. euh, pratiquement syndicats yi dañu réagir. Mm-hmm. ñu si bëri pratiquement à l'unanimité mais d'accord mesure bu na comprendre mais jàpp na ni nekkul mesure boo xam ne euh, c'est-à-dire si si am na am na sens fi ñu fi ñu toll nii quoi. Mm-hmm. parce que boo jëlee école sénégalaise pour man. il y question des questions beaucoup plus importantes. Mm-hmm. beaucoup plus urgentes. Mm-hmm. que l'histoire des des tenues parce que tey école boo dem am nañu seeni uniforme. Mm-hmm. donc je pense que école sénégalaise nu mu bëri ay problèmes euh, on parle des abris provisoires. on parle des des des des rappels des des des des enseignants. Mm -hmm. on parle du manque d'effectifs. donc bu ñu toogee ñi mën jël benn benn xaalis boobu def ko ci ay tenues ça pose problème. Mm -hmm. ça pose quand un problème d'opportunité. je pense que man jàppoon naa ni nii que xaalis bu ñu dugal si tenue mënoo dem feneen donc encore une fois plus rek di di aussi di di waxaat le ministre de l'éducation nationale mm-hmm. que éducation am na des questions yoo xam ne pour pour def si loo xam ne dina dina dina dina épouser l'adhésion de, de, de tout le monde il faut quand même euh, parler avec les les enseignants parce mm. que euh, mais mënoo toog euh, de loin di jël ay décisions yoo xam ne je pense que ce ne sont pas des décisions opportunes je pense que mm-hmm. bêtement en fait parce que quand même c'était une une mesure vraiment impopulaire ah donc je mm-hmm. pense que loolu moom vraiment bêtement d'accord beneen bi mm-hmm. aussi mooy les l'histoire des vaccins mais aussi xam nga vaccin yi dafa bëri ay intox Euh, même récemment waxoon nañu ni les les enseignants seront forcés de se faire vacciner je pense que il n'a jamais été question de forcer euh, les enseignants ou bien les étudiants de se faire vacciner je pense mhm. que passe sanitaire amul au Sénégal peut-être dans, les pays comme la France là mhm. on exige le passe sanitaire mais au Sénégal je pense pas que que ce soit les élèves que ce soit les étudiants euh, les enseignants ne leen forcer pour ñu dem vacciner wu là là là je pense pas mhm. je pense peut peut peut intox la mm -hmm. et que malheureusement on est dans un pays boo xam ne pratiquement y a beaucoup y a beaucoup moi je pense que gisuma gisaguma note boo xam ne dafa dafa wàcc obliger les enseignants obliger les élèves à se faire vacciner par la France mm la aw ñu dugg suñu thème la jeunesse à l'assaut des <coughs> locales quelle élection locale mu mel ni danoo yeewu. waaw euh, xam nga actuellement dafa am benn alternance euh, générationnelle parce que tey boo xoolee Sénégal boo boo jëlee en terme de de population ndaw ñi dañu am solo tey euh, pratiquement chef chef d'état yëpp mi Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Macky Sall seen enjeu bu njëkk mooy la jeunesse pratiquement dafa nekk benn question boo xam ne ça pose problème que tey aujourd'hui bu ñu xoolee au Sénégal tey y a beaucoup de jeunes cadres deuxièmement aussi euh, l' école euh, jàng école dafay daf lay jox ce que ce qu'on appelle des des ambitions. Mm que tey fi ñu toll nii au Sénégal euh, c' vrai que mais on voit que souvent ñu def ñoo ñu def euh, politique depuis ñoo fi ñoo fi nekk ba tey et que tey am na benn révolution boo xam ne mi ngi ñëw peut-être. Euh, elle est douce mais là on voit de plus en plus que jeunes yi ñu gën di affirmer wu. Mhm. et que loolu je pense que élection yi yi ñu jëm muy les locale je mhm. pense que Euh, dina nekk le le déclic en fait. c'est-à-dire mm-hmm. ngeen gis jeunes yu bëri yoo xam ne pour la première fois dinañ dinañ samp seen i seen i seen i ni ko olof di waxee ah. Mm-hmm. ils seront candidats. Mm-hmm. Euh, pour faire face parce que je pense que euh, man dama gëm ni peut-être c'est la compétence qui qui qui qui compte quand le jeune est assez outillé expérimenté pour. Euh, aspirer à diriger euh, sa localité je pense que dara mënu ko xañ pour mu pour mu pour mu nekk candidat. lan nga jàpp ni moo waral déclic boobu chez la jeunesse. tey les jeunes sont très bien formés Sylvie euh, xam nga xam nga l'école et comme disait euh, Mandela dans son roman Un long chemin vers la liberté seule l'éducation permet à un fils de paysan de devenir demi président de la République mm -hmm. parce que euh, jàng formation dafay dafay def ci ci xale bi ci jeune bi des ambitions e que même il y a certains qui ont même il un auteur qui a qui le choc des ambitions je pense que lool aussi euh, da koy da koy expliquer tey moo tax beneen bi aussi euh, gis nañ que que jeunesse yi en fait le jeune jeunes bëgg nañ indi une autre façon de faire de la de la politique. Mhm. aussi tamit euh, le renouvellement aussi est est normal parce que aussi ñu nekk si dëkk boo xam ne souvent on voit toujours les mêmes têtes tey baax na aussi que jeunes yi ñëw am seen wàll mais loolu nag du yomb parce que en face. il faut beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'audace, mm -hmm. beaucoup d'audace aussi pour pouvoir euh, réussir. Mhm. Mhm. Euh, tey euh, ndax jàpp nga ni ndaw ñi am nañu chance ci élection yi di ñëw. parce que du caaroy gaar kese moo am ay jeunes bëri na communes yoo xam ne. Euh, la jeunesse est massivement représentée. waaw mais xam nga. Mhm. bon man boo jëlee la coalition bi ma bi ma bokk tey dama parti bi ma bokk muy muy PLD. Euh, PLD ànd soxali Thiaré Gare ñu bok si si majorité présidentielle tey ñëpp dégg na ni le président Macky Sall a dit que nañ ko déglu donc euh, c'est lui qui va choisir en fait. Mm -hmm. je pense que euh, on est obligé de l'écouter d'abord parce que aussi il faut avoir aussi une un, militant doit être aussi discipliné aussi quand tu, quand dans une coalition aussi. Mm-hmm. euh, il faut écouter. Mmh. donc di leen déglu le président Macky Macky Macky Sall parce que c'est l'homme le mieux informé du du pays. Mmh. pratiquement il a des des, des éléments d'appréciation yoo xam ne euh, ñun amuñu ko keneen keneen aussi euh, amu ko là buñ buñ ko buñ ko dégloo peut-être. dina wax mais certainement su waxee parce que aussi on est euh, élection locale dafa am dafa am dafa am réalité donc mm-hmm. souvent aussi nit ñi souvent duñu duñu duñu duñu du ñu jël décision bi président indi souvent local moom chacun élive libre de de de de de de sa sa liste dem mais pour man loolu mais maintenant du yomb aussi ah du yomb parce que aussi boo xool tey tey les partis. parce que aussi ah, yu si candidat yu bëri yu ma dégg ce sont des effets d'annonce mais en mais en réalité ce sont pas des candidatures qui sont qui sont parce que bu ñu xamee les localité xam zone bi dañuy mm. xam ni peut-être ce sont des effets d'annonce euh, mais ñun moom vraiment ñun coalition. Euh, benn bokk yaakaar mënaguñu wax parce que il faut aussi ñi ñi ñi ñi déglu le le président Macky Sall pour xam mm. euh, pratiquement kan la ñuy teg Thiaroye Gare euh, on souhaite ah parce que aussi suñu suñu suñu suñu suñu coordinateur suñu responsable du vice président du parti. muy muy mm-hmm. muy muy maître Amadou Amadou Sall. Mm-hmm. naturellement il est le candidat du du PLD à à Thiaroye Gare. Mm-hmm. maintenant est-ce que Macky Sall da ko da koy da koy da koy da koy da koy dëggal Thiaroye Thiaroye Thiaroye Gare là aussi c'est c'est la question donc dañuy xaar après maintenant. par rapport à la décision de, de, de, du président Macky Sall, là, on va essayer de voir aussi d'avoir une réponse politique aussi. Mm -hmm. Mais avant euh, président Macky Sall di désigner yow pare nga pour doon maire. donc tout à l'heure j'ai ñu am benn responsable politique bu nekk Thiaroye Gare euh, pratiquement depuis quinze ans je collabore ak moom muy maître Amadou Sall je pense que ku ku ku nekk Thiaroye Gare. xam na la relation que j'ai avec maître Amadou Sall kii mm-hmm. euh, ministre de la de la de la de la justice dëkk dëkk Thiaroye mm-hmm. aussi nekk sama mentor en en politique je pense que man euh, sama sama liggéey mooy lan mooy mooy def tey maître Amadou Sall qui qui soit le maire de de parce que mm-hmm. aussi on a besoin de lui parce que il a les compétences si lui je sais pas est que tu as l'habitude de venir à à Thiaroye Gare euh, mon ami moom serul Thiaroye mais tey pratiquement jàpp naa ni Thiaroye moo ëpp ay problème au Sénégal vraiment c'est c'est c'est même difficile hein de de parler de Thiaroye Gare mm-hmm. et que man je pense que vu son expérience vu sa compétence euh, relation je pense que euh, il peut il peut être la solution quoi pour pour pour pour diriger la la mairie naturellement man nag j'ai j'ai un rôle à jouer à ce quoi parce que parce que jàpp naa ni euh, euh, man Ndiour personnellement ak samay ak samay ak morom ñu pour loolu am ñu ñoo war a fal maire Sall maire te ku fal maire Sall maire mais ngeen bëgg a fal maître Amadou Sall alors que euh, yow lu tax pourquoi pas yow. non non mais xam nga Sylvie <laughs> xam nga euh, comme comme comme je l'ai dit ah cest dire que man en politique je suis très patient la patience en en politique c'est important pour les pour les pour un jeune c'est-à-dire que man c'est pas parce que. je suis pas candidat rek que rôle bi rôle rôle bi mu war a am Thiaroye Gare du ma ko du ma ko du ma ko jouer non non c'est pas ça cest dire bul bul gisee foofu c'est-à-dire que man Macky Sall c'est mon responsable c'est c'est notre responsable politique à à Thiaroye Gaye naturellement c'est le candidat naturel en parle d'élection et que ñun chacun muy man mi keneen keneen Thiaroye benn benn mérite la ñu am benn ambition mooy que Macky Sall puisse euh, diriger la mairie de de de Thiaroye Gaye mais man maintenant maître Amadou Sall Amadou Sall maître Amadou Sall puisse diriger la mairie de Thiaroye Gaye mais man Ndiour nekk son responsable des jeunes à à Thiaroye Gaye j'ai un rôle à jouer mooy mooy lan tey jàpp naa ne tey bu ñu investir Macky Sall man la ñu investir d'accord man man la ñu investir donc euh, euh, voilà donc dafa laaj entendement mais man je pense que mon heure euh, va sonner bientôt. bokkul de Ndiour ànduma ceeg yow ma jox ma faa kàddu waaye foofu moom ànduma ceeg benn woon na yow ndax Amadou Sall Amadou Sall Abdoulaye Ndiour Abdoulaye Ndiour la. waaw man moom que mu nekk ay Amadou Sall xaw ku ma ci nekk je pense que tey li ñu wax dañoo ne la jeunesse à l'assaut des locales te ñu gis ne ñoom ñeneen ñi ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar. ma gis Thiaroye Gare ay jeunes yu bëri yoo xamante ni ay jeunes lañ. ñu ngi si mhm. coalition bi. ñoom ñuy dëgg seen bopp moom mu taxaw mu ne day nekk ci ginnaaw Amadou Sall xaw ma xaw ma xaw ma Malick Sall. Mhm. donc maître donc du moins pour ne pas wàcc tuuti dayoom. Mhm. man li moom mooy pourquoi jeunes yi taxaw. war a mën a ñoom laaj. dëkk bi. nit moom mu taxaw ne il ñu déglu ki nga xamante ni mooy président Macky Sall Macky Sall a déjà fait ce qu'il a à faire. bu deux mille vingt deux ñëwee jeunes ñoom ñoo war a imposer que yéen yéen a dëkk Thiaroye. Hmm. yow yaa dëkk Thiaroye maître euh, Amadou Sarr boobu ngay wax dë même fekkee si Thiaroye lan la la nekk. Hmm. fa la dëkkoon laa mën a wax. Hmm. mais nekk fa xamul réalité Thiaroye. jamono ji la ngeen dund mm-hmm. yéen a ngi dund impact li nga xam ne mooy terre bi yéen a ngi dund mm-hmm. li nga xam ne mooy inondation mm-hmm. tëli jàllo bi yàqu na yàqu boo xamante ne nekk nii euh, jéggi na dayo démb démb rek am na benn jeune boo xamante ne ñi ngi ko fa ñi ngi ko fa ñi ngi ko fa rey ci ay bus yooyu njëkkante donc man mënuma comprendre à chaque fois ñu gis ay jeunes yoo xamante ne ñoom ñi ngi seen biir parti ñoom ñu ne foog ñu xaar président Macky Sall te ñoom te moom moom laa xam moom munoo xelam mi ngi dem ci ki nga xamante ni moom mooy euh, maître Amadou Sall am na keneen ku fa nekk ku ko xamante ni mooy Mbaye Sène mhm. Mbaye Sène seen coalition la bokk pourquoi jàppale yu ñu jeune boobu euh, ne caaro euh, dëkk ñëpp xam nañ ko caaro mi ngi def ay action donte amul moyen mi ngi def ay action mais mais ñoom ñu ne wala boog ñoom ñi xam ñoo nekk PLD peut-être ñoom ñoo bëgg a samp maître amul saal mais boo demee ci rumeur yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk biir Thiaroye li ñu gën di waxtaane pour Mbaye Sène ngay gën a dégg te mm-hmm. Mbaye seen mi ngi seen biir coalition boobu mm-hmm. man li li may jaaxal moom mooy ñoom ñoom jeunes yi koos laaj mu ne ñoo ngi déglu président Macky Sall mm-hmm. mais mais 2022 bu problème bi jeexee ba ñu jël kenn teg ko fa bu problème yi di di di di continuer waat du président Macky Sall ñu lijjanti leen ko. tout à fait loolu lan ngeen di continuer wax da naan waaw euh, non ba ñu ba ñu parce que c'est c'est c'est chef de parti il fallait que ñu topp ci ginnaawam euh, sinon boo toppul ci moom mën nañ laa sanction du genre alors que nekkul affaire sanction. Mm-hmm. gis nga affaire affaire de commune affaire de loo xamante ne affaire de de de la nekkul comme président Macky parce que président Macky loolu loolu président caaro bi nga xamante ne yéen fa ngeen dëkk yéen yéen a xam jafe-jafe yi yéen dund mhm. yow njuur bër nga mën a taxaw ñu ne euh, maître Malick Sall ñu ne waaw maître Malick Sall moom mooy moom mooy ah, nga ne moom mooy sama kilifa waaw sama kilifa la ci moom moo jàngal politique moo ma defal lii mhm. mais quand il s'agit te li nga xamante ni moom mooy sa localité yow da ngaa war taxaw bañ ne même président Macky Sall taxawoon taxaw nga ne ko président Macky saal mhm. ba mu gis la nga ne ko caara ñu ñoo fi yewoo mhm. ñun ñoo xam jafe-jafe ñoo xam léegi léegi maître Malick Sall bis bu ñu ko defoon bu ko defoon maire mhm. certes dina jéem a def mais ça sera un maire comme ni ñu ko comme ni ko ñeeñ defee ah non mhm. <laughs> ça sera un maire fantôme comme ah ni mu amee ci yéen kii yëpp c'est-à-dire que aussi je suis obligé de de de vous interrompre excusez-moi parce que ce n'est pas dans mes dans mes dans mes dagg nit ki mais aussi il faut aussi ñi contextualiser affaire yi d'abord euh, man caaro gaar laa la la la laa dëkk fa laa dëkk fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yoroo ca Ragall dëkk euh, balaa ma ñëw si maître Amadou Sall mhm. tu as parlé des jeunes tey boo xoolee Thiaroye mhm. dafa dafa yàlla réveil des des jeunes loolu loolu loolu nangu naa ko je peux te mhm. je peux te euh, ku mel ni euh, Modou Mbow c'est un jeune qui a Thiaroye un jeune très dynamique Mbaye Sène qui un jeune un ami très très dynamique Ousmane Ndiaye El Hadj Bey Babacar Bey les jeunes sont et puis voilà donc donc donc donc loolu am na. Mm. maintenant aussi bu ñëwee si si Mersa cest aussi c'est quelqu'un boo xam ne booy wax ni xamul réalité réalité Thiaragaye je je suis désolé. Mm-hmm. cest di que aussi gis nga naa il faut ñu xam aussi lan mooy dëkk. Mm-hmm. dëkk dëkk gox. Mm-hmm. yow ah tey xamuñoo rek yow xam nga yow mu tey mu nga dëkk yaa ngi dëkk. jiddu caare gaw jiddu caare gaw tuba caare gaw ah xamuñoo rek c'est-à-dire man tey njuur mën naa dëkk caare juddoo fa màggee fa yeloo fa jàngee fa tekki fa mais dans le cadre fonction ma mm-hmm. préféré tuxu dem toog Kër Massar mm-hmm. wala tuxu dem toog euh, aux HLM mm-hmm. c'est pas parce que su ma tuxoo HLM dëkkuma Thiaroye parce que Thiaroye je pense que euh, sociologiquement parlant il faut que tu te sens Thiaroye un Thiaroye ku xam mel Sall xam ne ma nga xam ni il a c'est-à-dire terme booy booy Thiaroye dafa am boo xoolee saa dëkk. fa la. judd foofu la def ay activités am est-ce que. non non c'est-à-dire que non c'est-à-dire domiciliation ñu xam luñ luñ bëgg ñu cest à tey mhm. xam nga ni géej géej tey géejawaay mooy dëkk bu gën a baax. Mhm. ñëpp jàpp nañ ni ni Alioune xaw ma ko. Mhm. mosuma ko gis. mais tey opposition pouvoir ñëpp xam ne Alioune Sall dafa liggéey géejawaay Alioune ñëpp xam ne nu mu ñëwee nu mu ñëwee géejawaay mhm. dafa jóge fële ñëw géejawaay toog fa dëkk jënd fa toog fa imposé fa boppam gaanaan dëkku fi mhm. mu liggéey géejawaay mhm. mais ñu tamit il faut ñu dépasser terme dëkku fi te tey aussi mais amul mu def peut être yow dëkkoo caare moo tax mais amul mu def tey bu dëkk caare mën a xool message si ba dina ko dëkkoo dina ko dëkkoo dëkkoo caare léegi ma ko dëkkoo caare loolu loolu amul donc ku ku ku dëkk kuy ku juddoo caare jàngee caare si kër papa nekk caare màggee caare ah tuxu nga nga taxoon dëkku ca loolu mm-hmm. kii et puis réalité bi amul lu amul lu xew Thiaroye Gare même ba si inondation yi passé yàggul mm-hmm. ba ba ba mbënd bi amee Macky Sall nous a envoyé deux mm-hmm. pour ndox mi ok quand il fut ministre de la justice il a il a amené pratiquement quinze mots de pompe la banlieue c'est-à-dire lu am Thiaroye mais nag naturellement c'est boo boo xam ne c'est pas comme aujourd'hui bu defee indi média yi ñu wax noonu loolu amul benn aussi il faut ñu xam contexte élection bi mm-hmm. élection locale mais ay référendum la mm-hmm. c'est-à-dire c'est opposition contre pouvoir mm-hmm. bi c'est c'est c'est c'est c'est différent da nga koy comparer ak les élections de 2009 quand Wade a perdu les les les élections de 2009 les gens sont dit c'est fini mais ñun tey euh, élection yi c'est un référendum aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition moo tax et puis Sall l'a dit clairement à chaque fois que nous l'avons écouté on a remporté les élections. ok man fi may waxee mooy. mooy may waxee man fi may waxee moom mooy. nga bu boo mënee def benn sondage nga ñu wàcc Caaroy ne euh, candidat euh, maître Amadou Sall Caaroy la bëgg a jël Caaroy yaayu bëri boo laajte dañ naan la kan mooy kooku. non ma ñëw non je am Caaroy gaar. dama la expliqué dama la expliqué rek. elle s'est am Caaroy gaar. moo am yëmbal sud avec le, ministre Amadou ot bi nga xamante ni moom la ñu ne moom la ñu investir pour mu pour mu euh, porter benn bokk yaakaar bi a nga a nga ñu bëri mos ñoo xam ne y avait euh, euh, certain Amour Hott boo xamante ne yëmbal la dëkkoon fi la fi la màggee fi la kii soo dem en France jàng ji mais léeg-léeg ko nit ñi soo xam mais bu ñëw nag na bañ ne élection locale ñëw na ñoom ñi nga xamante ne fi mu nekk nii mun naa jàpp ne ku nekk da ngay daw daw làqu parce que amuñu benn certitude ci luy war a xew 2024 <laughs> ñu ut ku nekk fooy fooy làqu ji léegi nag làqu boobu nag yéen yéen jeunes yéen ñi nga xam ne a yéen bëgg a taxaw yéen a bañ parce ni nga nekkee

dañu ma tete en 2012. c'est-à-dire que Mersal mm-hmm. on a on a ans de relation. Mm-hmm. de collaboration politique. Mm-hmm. d'accord 15 ans de de collaboration politique. beneen bi mooy aussi sondage. ban sondage tey am Thiaroye Gare. amul ku dëkk Thiaroye Gare yow Thiaroye Gare taxawu Mersal. parce que nag on est dañu nekk dëkk boo xam ne nag pratiquement nit ñi dañuy wax loo xam ne gëmuñu ko mais tey amul Thiaroye amul te Thiaroye ba taxawul la xaw Mersal. amul parce que gis nga 2014 avec Mersal. on est on est arrivé deuxième les les locales de 2014. Mm-hmm. ak PDS deuxième mm-hmm. xam nga euh, premier bi ñaata voix la ñu rawee. 89 mm-hmm. voix. les dernières élections à Thiaroye Gare xam nga ka moo ko ka moo ko rapporté. Maître Sall. tey Thiaroye Gare les dernières élections yi fa mujjee am. Maître moo ko remporté. mais locales yi mujj du moom moo ko am. mais locales yi passé dañu gagné ak 89 voix. 89 voix te boobu PDS avait deux listes donc ni ku mel noonu tey bu ñuy jugé. si si éléments yooyu la ñuy la ñuy jugé donc ku am tey loolu munoo taxaw ne Thiaroye il bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy analyser en fait. xamuñu rek bu ñuy analyser en fait. bu ñuy analyser parce que bu ñuy analyser vous loo yëpp yëpp yëpp ngeen gagné. waaw fi mu nekk nii Thiaroye ñoom ñoo ne Babou Ndoye. waaw d'accord mais mais mais mais aussi. man la ma mën a nangu moom mooy yéen bu ñuy fal maire. c'est bu ñuy bu ñuy il faut qu'on convoque les profils c'est-à-dire man Sénégal laa gis élection am mais ñu convoquer le profil duñu convoquer la compétence cest dire que dañuy xool rek kii moom a neex parce que voilà il donne de l'argent moom moom la votel gis nga suñ même suñu dëkk bi au Sénégal il faut qu'on soit exigeant mm. avec nous-mêmes mm. c'est-à-dire man dama gëm ni man Ndiour ak lu ma bëgg mairie mairie mairie mairie bu Macky Sall taxee nekk candidat dama koy jàppale parce que boobu ëpp mhm. xam-xam mhm. ëpp ma compétence ëpp ma ëpp ma vécu mhm. Thiaroye Gare aussi man sama commune dafa dafa métti ah. man aw ma terrain de football ASC foofu Thiaroye Gare amuñu terrain bu ñu bu ñu joué le camp est fermé camp bi amatul accès te camp bi am na trois SEM si biir un lycée centre polyvalent amatul loolu euh, les élèves dañuy dañuy wiiri Thiaroye amul espace pour les jeunes Thiaroye tout tout est marché quatorze hectares de marché dafa daf caaro étouffe mhm. ñun loolu nag solution bi ñu si bëgg mooy quelqu'un qui est là qui compétent mhm. expérimenté mhm. ñu loolu loolu la ñu bëgg en fait. mais expertise expertise non mais non attends mais. mais réalité yéen yéen yéen dogguma la Ndiour euh, li nga fi wax yëpp may ma rek may ma non may ma rek xoolal li mu fi lim yëpp c'est vrai loolu lépp ñoom ñoo xam ne dem ne ko Malick ah, maître réalité yii ma fi am jafe-jafe yii ma fi am. mais moom xamu ko mais yéen yéen a. non si bu la xamu ko non je suis désolé. foofu laay ñëw tout à l'heure nee nga Thiaroye presque amul dara. Mm. mais tey doomu Caaroy moo war a xeex ba tey loolu lépp mu am Caaroy tey nga foog ne njuur jotul ñu xoolaat yaa ngi koy wax sànq ñu xoolaat kan lañu war a teg maire. Mhm. parce que mënoo ne man maire mën naa ne mënoo ne euh, man je suis le maire de Caaroy mhm. te du ma yeewoo Caaroy pratiquement gis nañ maire fi Sénégal yëpp du Caaroy kese de Sénégal bi yëpp mën naa ne ba ci région yi fa nekk ay maire fii la ñuy yeewoo biir Ndakaaru seen dëkk seen yi seen commune bu doon tàq te ci dara xamuñu lu fa xew mhm. ndax tey jotul euh, Ndiour pour ñu xoolaat façon bi ñuy élire maire. non mais la façon on l'a on l'a déjà avec les avec ku yeewoowul benn commune amoo droit. mais Sylvie comme léegi man même boo fa juddoo. waaw ah, Sylvie léegi dama lay benn question bu ndaw man Ndiour xam man caa laa dëkk. léegi man d'ici d'ici dix ans par exemple mu tuxu Caaroy dem dem dëkki Kër Massar exemple wala dëkki Kounoune. comme léegi am amatuma droit nekk maire Thiaré parce que parce que dëkk ma parce que yeewu ma Thiaré gaar. non réalité boo non non non écoutez donc même réalité c'est parce que non non c'est benn la même réalité parce que la ma doon nekk même réalité. man Thiaré la jàngee. Messal Thiaré la Thiaré la Thiaré la la jàngee. isaan comprendre. ma nekk boo jàpp nekk boo Thiaré fo Thiaré la ñu fooy on a l'identité de boo Thiaré si ñun. fa lañ jàngee léegi tey dama lay limal tey ñu ñu dëkkoon Thiaré tey juddoo Thiaré tey dëkkatuñ Thiaré parce que seen liggéey moo la ko may. tey boo jëlee ko mel nii le professeur euh, Souleymane Mboup fa la dëkk dëkkul Thiaré. Hmm. fa la màggee. Hmm. fa la fa la jàngee. Hmm. tey c'est une référence au au Sénégal. kooku tey ñu nga taxaw kooku naa ko dëkkoo dëkkoo Thiaré. ok. mais dëkk Thiaré noo xa noo xa noo xaamuñu rek xaamuñu rek tey métier bi nga nekk muy le muy le muy le journalisme. nga jël ko mel ni Souleymane Niang. suñu kër yi dend. dëkk caare màgge caare chaque weekend mi ngi mi ngi mi ngi caare. weekend nga wax liggéey man non maanaam liggéey non léegi yéen da bëgg mais léegi léegi léegi ma parce que man munoo ne maire man je suis le maire de Thiaroye dem tëdd Almadi ñu lay joñaat ay ginaar dina <laughs> non naan ay champagne mais yow sa commune buy tàq tey doo ko ah, non non non non gis nga gis nga Macky Sall fan la yow non balaa gis nga balaa ngeen hmm? mën a xam réalité Macky Sall waaw ah, ci biir réew mi xanaa. ah non non non Macky fan lay fan fan lay yeewoo ah, xam nga xam nga yow mi nga xamante ah, ne yow nga nekk jeune. dëkk Thiaroye dem ba ne maire laa bëgg ñu dem ba fan la maire. waaw bokkul ak jamono ji nga xamante ne dem nga ba benn instant Ndiour am kër kër Massar jamono ji ñu fal boobu yaa yaa ngi biir Thiaroye fa ngay yeewoo ba nit ñi ne Ndiour mii mooy suñu président mooy suñu kii débat bi man cest à il faut si li boo ko may en 30 secondes c'est-à-dire aussi débat chaque fois dama demande actuellement ci Sénégal toll. Mhm. parce que léegi boo xoolee dëkk yi. dans toutes les communes. Mhm. chaque fois pour éliminer le candidat qui a le plus d'atouts. le mhm. plus intelligent. le plus mature le plus compétent souvent naa ko noonu kii dëkkul caare. wala kii dëkkul yëmbal. wala kii dëkkul buun. nañu bàyyi loolu man jàpp naa ni nit bu taxawee jug ne dama bëgg a nekk maire Thiaroye Thiaroye Thiaroye Gare bu dëkkuloon Thiaroye Gare. wala bu centre woon Thiaroye Gare du taxaw ni bëgg nekk maire. isaan parce que Thiaroye Gare problème métti na tellement que nii. ce que papa nekk fa nga juddoo fa màggee fa. Mm-hmm. tekkee fa tout ça di jàppale waa waa waa waa Thiaroye Gare ne ba nga nekk maire maire Thiaroye parce que les problèmes sont là et yaakaar naa ne am naa si solution ñoo ko déedéet parce que parce que dëkkoo Thiaroye Gare la mooy la mooy dëkk parce que non bu la dëkk parce que vous n'êtes pas domicilié à à Thiaroye Gare mm-hmm. la alors que on sait que l'adresse ça change tey mun naa mun naa dëkk Pikine soo soo mu dëkk Thiaroye mm-hmm. mais donc c'est il faut qu'on déplace un peu le curseur ah. placer ko peut-être dans des dans des dans, dans des conversations beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus actuelles et permanentes quoi mm-hmm. aussi réalistes. Mm-hmm. parce que actuellement Sylvie nee la man man sax bu nekkoon ku defar Thiaroye Gare mi ngi dëkk Chine. man Njóo dama koy jëli ne ko kaay def kaay defaluñu Thiaroye Gare parce que Sylvie day ñibbi de toog yi jël apéage bi wàcc Kër Massar dox naa ci ñibbi yow aussi la même chose mais mais man est-ce que comprendre mhm. léegi damay tax naan non parce que léegi euh, ki dëkkul caare no ñun dépassé nañ cadre yooyu man man njur bokk nekkuma si si si considération mhm. yooyu mhm. man dama gëm ni en tant que en tant que en tant que jeune j'ai tout fait pour caare en fait c'est c'est c'est trop dit je fait pour caare mais j'aspire à faire beaucoup beaucoup beaucoup pour caare parce que caare parce ma caare maa maa maa de choses léegi nag caare dafa metti problème dafa metti Babou Ndoye moom moom n'a rien fait moom. foofu moom vraiment je je je préfère ne pas tirer sur sur sur une ambulance quoi. Hmm. bi nekkul nekkul ne. yeewu bi. waaw mais ki nga xamante ni moom moo xam bu ñu xam réalité. mais nangu la ma Sylvie. ma man na woo dëkk par force mais yow yow mi fa nekk yow yow mii ah. yow njuur nga ni Caaroy laa dëkk ñi xam ne Caaroy nga dëkk nga ñëw ne man de damaa bëgg ngeen jox ma ngeen jox ma maire bi nit ñi dinañ ne ah njuur mii de. xam nañ ko xam nañ ko. gis nañ li ñuy def xam nañ xam def na fi lii lii lii lii mais ki nga xamante ni peut être mën nañu wax ne euh, dëkku fa si conscience nit ki danaan kii na na la mën a xamee suñ suñ jafe-jafe. nga nga mi nga am compétence c' est vrai. maire maire maire dafa dafa soxla compétence. waaw léegi dama leen dama leen posé benn question bu ndaw. Mhm. yow yow est ce que mën nga ma limal quelques réalisations yu Messal def def def Thiaroye Gare. ku ku kan def. Messal waaw. ak nga ma ak nga man pour dire vrai pour dire vrai mënumaa wax ne maire Sarr moom def na lii caaro def na caaro à part li ma li nga xam ne déggoon naa ko ci inondation yi nga xamante ne ñëw naa ba foofu mm-hmm. xool ñu ne def na joxe nañ lii mais ba léegi inondation yaa ngi fa ba léegi ndax maa ngi fa ba léegi ah, dama dama lay dama lay wax dama lay dama lay dara mm-hmm. gis nga aussi actuellement la désinformation l'intox ak les réseaux sociaux là lu yàq Sénégal moo ko moo ko yàq mm-hmm. d'accord mais man dama lay wax gis nga maire man j'ai eu la chance de de de de, de le côtoyer. Mm. xam ko gis moom ay ay ay valeur mm. gis na ko Ablaye Wade teewoon. est-ce que mm. kooku man xam naa ni il a beaucoup pour Thiaroye Gare. mais malheureusement son seul défaut c'est que du du du def du wax. d'accord. et puis un deuxièmement aussi xam naa fi ko Thiaroye toll. ça c'est ku dëkk ma xam na xam na ko xam naa fi ko Thiaroye toll. dans les plateaux télévisés fépp fu mu toog lu mu wax Thiaroye laa dëkk je suis am na ñoo xam ne duñ toog mukk plateau ba taxaw ne ne ci Caaroy laa dëkk. Mhm. yaa naa am na politiciens yoo xam ne duñ toog mukk ne ne ne Caaroy wala buñ génnee changé changé seeni adresse. Mhm. d' accord mais tey ku xam ne sa xam ne Caaroy dëkk il porte Caaroy dans dans dans ce corps les stigmates. Mhm. comme comme comme comme comme il dit je porte les stigmates de Caaroy gare. léegi nag bon bu ngeen may ñaanal xam nga xam nga lu ngeen may ñaanal. que conditions yi Caaroy nekk. mu changé. parce que Thiaroye dafa metti en fait. Euh, justement foofu la ñëw seen actuel maire euh, Babacar Sène. Euh, noo gisee sa gestion parce que nee nga Thiaroye manque de tout. Babacar Sène sa gestion elle est catastrophique elle est nébuleuse incompétente immature tous tous les qualificatifs sax mënu ko kii parce que Babou Ndoye parce que aussi Babou Ndoye. Euh, man je comprends que nii même su su su bëggee xamul parce que c'est quelqu'un boo xam ne euh, un maire qui n'est pas instruit mais malheureusement qui n'est pas instruit mais moom xam nga la may fal baabu ne maire. parce que ñun dañuy toog caare waa ki dëkk fii waa ki nii ki ne mu mu daw naa ko dugg nekk nekk maire. Mm-hmm. gën a xaar jox paay jox maire yi. Mm-hmm. xam nga euh, transférer les les étrangers comme comme comme on dit chez nous ah, pour ne pas stigmatiser ah. Mm-hmm. les politiques ñëw transférer ñëw toog du sax baatu campagne en fait. mais ñun au moins ñu ngi toog foofu naan ku dëkk caare ku dëkk caare mais moom tranquillement mi ngi yot nag ba toog si nguur gi. Mm. nekk maire. Mm. tey boo xoolee Sylvie tey caare boo xoolee euh, li ma ma tey au Sénégal euh, fu am 14 hectares de marché. Mm. ñun caare dañu ko am. tey boo xoolee croisement Tili Diallo bu bu bu bees bii. rond bi te xoolee foofu tey la ma la ma fa nekk. léegi gars yi jëloon ko def ko garage est-ce ñaata nit ñooy ñooy yeewoo ci yeewoo caare gare. mais après Thiaroye d'ici dix ans maximum ça va exploser xam nga tax léegi ñu dëkk Thiaroye Gare amatuñ espace bu ñu bu ñu bu ñu mën a noyee. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que amuñu aire de jeu amuñu dara. y a rien tout en plus aussi on est on est on est le terre est la le le tour à ñu nekk si biir. Mm-hmm. mais après loolu insécurité bu muy jur loolu kan moo ko attan. cest dire ñun aussi il faut ñu ñu raisonner en terme euh, en en terme pas kii mais il faut aussi ñu mën a anticiper un peu xool d'ici dix ans Thiaroye gaa ñuy mel parce que la mm-hmm. population va doubler parce que aujourd'hui à Thiaroye ce qui se passe là-bas c'est important et j'attire aussi l'attention du du chef de l'État parce que tey Thiaroye la population étrangère marché fu mu nekk ñu ngi fa gis la la population vient de Guinée de l'autre là mais bu da dañuy dañuy dañuy mixé wu ak la population locale ce qui fait que aujourd'hui la population de Thiaroye dafa dafa dafa triple mm-hmm. mm-hmm. mais léegi cette cette cette population là amuñu espace mais après qu'est-ce qui va se passer est-ce que comprendre. Mm-hmm. c'est que yooyu man souvent man yooyu laay xalaat mais j'ai l'impression que fu may xalaatee. ñu bëri xalaat foofu jeunes yi amuñu mais mais mais ça la la proposé Thiaroye ci doon boobu parce que Thiaroye euh, camp tëj nañ ko camp bi lañ amoon tuuti espace. très bien j'aime j'aime bien ces ces questions là très bien. te aussi da ngaa wax sax lu importance sax nga ne nga ni Babou Ndoye fi mu jaaree moom mooy ñëw na jox nit ñi kii. xam nga xam nga euh, liñ naan euh, réalité yi nga xam ne ci ci la gars yi di profité wu. très bien te def nañu caaroy euh, dëkk bi dëkk bi dëkkawaay métti na nit ñi pauvre nañu jafe-jafe métti na léegi moom ñi nga xamante ne seen xel màcc na ci yenn yi dañ naan seen instant yi bu ma ñëwee buux leen xaalis. Mm. ci laa gën a mën a am opportunité. dagaan seen baat. Mhm. que nga ñëw naa leen am naa compétence bi donc yéen. est-ce que pare ngeen instant bi pour pour jël benn genre programme boo xam ne yéen ñu. ah d'accord mais xamuñu qu'est-ce qu'on propose lii lañ bëgg a proposer. pour Thiaroye ah d'accord xamuñu xamuñu qu'est-ce qu'on propose. waaw mais maire yi seen liggéey gën a mën a am ci Thiaroye ak ak yi yéen a ma déggoo ma toll xamuñu qu'est-ce qu'on mhm. qu'est-ce qu'on propose. Mhm. Hmm, par le média de Maître Sall d'abord la délocalisation du camp. parce que tey Thiaroye euh, amatul espace il faut camp bi jug. parce que camp boobu mooy servir espace de jeu pour pour les jeunes. ñun d' abord on la délocalisation du camp camp bi dafa war a tey. parce que tey am na benn commissaire police am nañ benn jàmm nga si Kamba booru guy gi donc tey il faut camp bi jug. mais la. non mais non je je pas dit la la délocalisation du camp. Mm-hmm. Mm-hmm. camp bi bu nekkee bu nekkee histoire les gens ne l'ont pas respecté. Mm-hmm. tey marché moo fa moo fa nekk. bu ñu bu ñu respecté woon histoire tey duñ duñ duñ fa def marché. est-ce que parce que tey Thiaroye mu jàpp naa ne Thiaroye dafa nekk patrimoine boo xam ne chaque année ni ñuy ñëw euh, mm-hmm. mais tey foofu militaire yi daanoon marché marché ma fa mm-hmm. donc ne me parlez pas mais tey pour sauver le mooy il faut tey la délocalisation du camp un mm-hmm. deuxièmement aussi Thiaroye pour ñu defar ko il faut ñu toj parce que xam nga en urbanisme dafa am ce qu'on appelle la politique euh, du rattrapage que boo xoolee dans les banlieues nit ñi day ñëw dëkk ba pare soo ko soo xalaat euh, école soo ko xalaat tëli pour caaree baax assainissement ah, pour caaree baax il faut ñu toj caare yi une partie hmm. defar caare yi pour caare yi baax il faut ñu wàññi marché yi xam nga la wàññi marché yi ñu jël marché yi casé leen benn côté ce qu'on appelle un cœur de ville mais caare dafa am un cœur de marché ñu xam ne kat fii mooy marché bi wala aussi defal loo xam ne ce qu'on appelle un cœur de ville xam nga la mooy la de ville te boo demee tey euh, géejawaay gis ni fii mooy préfecture bi fii mooy police bi fii mooy euh, centre polyvalent bi fi mooy euh, marché bi loolu mooy cœur de ville. Mm. te am na localité yoo xam ne am ñu cœur de ville il faut que Thiaroye am cœur de ville. Mm. ñëw gis police bi gis marché bi gis centre centre polyvalent bi gis stade bi ok un deuxièmement aussi il faut qu'on construise un un stade multifonctionnel tey banlieue bi isa isa ma ban commune moo moo fi amul stade ma Thiaroye Gare. Mm. ñun amuñu Kër Masar am na bientôt bientôt di nga si même kii mais boo jëlee yëmbal. Euh, nekkul Géejawaay Géejawaay waaw non damay yëmbal non. Kër Masar amuñu amuñu espace d'accord mais xam naa ni bientôt mais nga jël yëmbal. nga non bi yëmbal. nga jël Malika nga jël nga jël euh, Mbao ah mais li ma la fa kër euh, kër Mbaye Fall parcelle Géejawaay. Mhm. mais mais Thiel gars ñun amuñu espace. Ah, non ah, mais <laughs> terrain boobu léegi c'est clôturé <laughs> mon ami boobu léegi militaires yi nee nañu terrain boobu ñoo ko moom donc ñun vraiment dañu ñëw indi indi innovation parce que loolu mooy defar caa tey. Mm. xam nga parce que aussi gis nga gis nga tey bu ñu naxante quoi man pour man ñu fi nekk bëgg nekk maire Thiaroye yi wax naa ko il faut qu'on élève un peu le niveau du débat. Mm. d'accord de programme. Mm. parce que justement ah. ma euh, heure bi léegi mu jot <laughs> balaa nga ñëw ci programme yi. Euh, tey Macky Sall c'est vrai mooy désigné candidat bu ko neex. Mhm. waaw ñëpp xam nañ ni Macky Sall bu ne nii la nii la ñëpp dañuy topp. Euh, tey bu du nekkul Amadou Sall parce que rien ne vous yow ya Amadou Sall nga yaakaar ni moom la fiy teg mais mën na nekk yow tey bu dee tey Abdoulaye Ndiour laa tànn comme candidat mairie Thiaroye Gare Louis nga ñëw ci programme bi ak loo na ma def say ambition pour Thiaroye Sylvie <laughs> Ba bon choix bu Macky Sall choix bu mag Sall def tey bu ñu yeewoon tey ñu ne Macky Sall nee na Abdoulaye Ndiour mooy mooy mooy doon candidat nga ne lu ma def Thiaroye. Mm-hmm. wax naa ko sànq cest à tey Sylvie xam nga dëkk boo koy defar bu nangu ku la meree ba nga xam dëkk gis nga man lu ma njëkk def tey mooy mooy mooy lan jëm a en un cœur de ville à à Thiaroye un deuxièmement lu may def mooy euh, marché yi dama koy wàññi. parce que nee naa la Thiaroye Gare Macky Sall carrément euh, loolu je pense que euh, Mbaye Sène moom ko wax wax genre dans dans une rencontre. Mm-hmm. Macky Sall a dit que il a été induit parce que Thiaroye ay 14 hectares de marché. 14 mm-hmm. hectares de marché mais loolu ba ban dëkk la am donc il faut qu'on diminue un peu deuxièmement aussi il faut qu'on passe qu'on pense à la jeunesse xale bu ndaw dafa soxla cadre boo xam ne daf ko soxla pour pour ses il faut loolu am. de euh, un assainissement yi mënuñu ko régler caaro yi tant que amuñu kër yoo xam ne ils vont faire le sacrifice jóge foofu dem dem dem dem dem dem dëkk feneen. Hmm. est-ce que comprendre beneen beneen aussi pour aider un peu à la euh, la jeunesse il faut que tamit ñu defar des des un stade multifonctionnel à Thiaroye Gare ok il faut aussi qu'on renforce la formation des des des des jeunes parce que man dama dama gëm nii pour pour pour jàppale booy booy booy banlieusards yi il faut ñu gëm leen seen bopp. Hmm. ñu bañ a doon ay complexes mais pour ce faire il faut booy jàng am formation. parce que dans la dans la vie ce qu'on appelle le développement personnel boo gëmul sa bopp doo doo si mën a génn. Mm-hmm. il faut nga gëm nga sa bopp loolu nag ça mm-hmm. passe par par par des mm-hmm. ok en plus naturellement aussi il faut qu'on appuie les femmes. ok am na yaa yaa mais femmes yi rek jàppale femmes yi nekkul da ngay tabax maison de la femme non mais femmes à travers de de des c'est-à-dire benn entrepreneur boo xam ne au moins toog nga nga former leen dans la transformation tout ça jëm leen parce que jigéen rek laa laa gis boo ko boo joxee xaalis cinq cent mille balaa un an. mu liggéey ko yokk ko parce que jigéen boo financé xam na lu mu lu mu bëgg a def parce que parce que suñu yaay si cinq lañuy lañuy la ñuy jóg dugg super dem dem liggéey ñëwaat. Mm-hmm. donc il faut il faut donc grosso vraiment action yi je pense que buñ si nekkul rek duñu duñu dafa caare mais bu ñu bàyyee que euh, lobby commercant yi. Mm-hmm. tey caare yi tey si bi sama ko may en en terme de de transfert caare a eu plus de 2000 transferts. directeur directeur si commune bu ndaw. dafa dafa dafa jaaxal ñu bëri parce que transfert yooyu ce sont les commerçants en partie xamal xamal moo tax parce que ñoom seen intérêt c'est le marché donc euh, mais seen intérêt mën na dippook ak intérêt waa Thiaroye Gare hmm. du ma ne commerçant yëpp de non je ne mais ñu si bëri tey parce que mu parce que mu nga dëkk yëmbal di dëkk yëmbal mais Thiaroye ngay liggéey léegi ne man je préfère voter Thiaroye Gare parce que sama intérêt mi ngi Thiaroye Gare hmm. te tey boo xoolee nu caaree mer vraiment euh, daf daf ma commerçant daf ko daf ko étouffé aussi. Mm. loolu aussi il faut mu dañ parce que aussi man personnellement bañu ma ku ma ku ma mm. mere en fait. Mm. mais là parce que il faut qu'on pense à caare il faut ñu xalaat suñu ndañ parce que tey c'est difficile. merci l'accès difficile quoi. merci Abdoulaye Ndiour deux minutes ñu bàyyi la nga joxe sa dernier mot nga tàggatoo. waaw bon Sylle maa ngi lay nuyu ah di nuyu sama sama sama waajee. <laughs> te sànn ma xeer ah. <laughs> ça ça prouve xam na caare bu baax. Euh, aussi di di la di la di la di la mm-hmm. comme ça il faut donner la parole aux aux jeunes ah. c'est important donc di sant di gërëm waa waa Thiaroye Gare euh, di leen sant bu baax di leen wax ni aussi élection yi ñu jëm dafa nekk élection yu am solo yu am solo pour l'histoire de Thiaroye parce que aussi waruñu seetaan ba ba ba ba ba ba affaire yi delluwaat ci loxo si loxo baabu. si mm-hmm. sinon rek day métti ci ñun. benn benn aussi il faut qu'on fasse preuve de modestie. man li ma gënal mooy que coalition taxaw ñu ànd ñu ngi wax ñëpp ñu toog ànd. Hmm. man tey loolu laa bëgg parce que tey euh, jàpp nañ ni Thiaroye pour gagner il faut une coalition pour jëlee fi Babou Ndoye parce que Babou Ndoye il hmm, waaw donc voilà donc <laughs> yeewee aussi oui yeewee là mais question alpha il faut une coalition pour pour pour pour jëlee fi Babou aussi hmm. mais jàpp naa nag ni cette fois-ci Thiaroye. xam na ni bon le le meilleur choix c'est c'est c'est donc je pense que à aussi doute que ni il sera par le président de la République pour euh, porter la candidature de de de de de de Benno Bokk Bokk Yaakaar à Thiaroye parce que mm-hmm. je pense que il a plus d'atouts quoi que que les autres. merci mm-hmm. mën na nekk yow tamit. da waaw waaw bu nekkee man man aussi ma ma ma assuré ko rek ah. yal na doon yow parce que man <laughs> jeunesse bi laa gëm ni ñoo ñoom rek a a changer affaire yi. sonn mm-hmm. waaw voilà donc donc man man man moom la man man li wax laay wax moom moom laa jàppale bu desee lu choisir le président Macky Sall na la choisir yow. Mhm. wala jeunes yi ñu piloté li nga xamante ne mooy Thiaroye parce que Thiaroye li mu am ci ci budget ay plusieurs milliards marché li muy dugal rek ay ay millions la par jour non am milliards de. Mhm. ah suñ su suñ budget matul matul milliard rek. ah mais seen marché lu muy dugal. waaw mais matul mais nag loolu c'est hmm. Hmm. que xam nga budget bu nekkee un milliard. of nag daf si am droit de regard. da teg hmm. bët léegi nag ñooy def. waaw a a lu ñu mën a am daal lu ñu mën a caaroy caaroy sonn <laughs> nañu jafe-jafe metti na. Euh, Macky Sall bi mu waxoon da koy defar muy suñ deux voies caaroy tëli jàll bi ah, nañ ko defar parce que démb rek rey nañ fa ni démb. Euh, ci euh, réew ne yi. Sylvie nga baal ma mhm. mais euh, président Macky Sall laay ñaan ak aussi waa waa CSE ñuy defar tëli bu jógee fàllu war ga dem ba guy gi mhm. tëli boobu ça fait trois ans que mënul pare mhm. te vraiment tëli boobu mi ñuy indil problème yu méttee métti métti donc vraiment à travers cette émission je lance un appel mhm. au ministre des infrastructures quoi Thiaroye Gare sonn nañ trop parce que tëli boobu vraiment ça nous pose un problème parce que trois ans mënuñu nangu tëli boo xam ne c'est c'est moins d'un kilomètre mënul pare vraiment c'est mm. c'est compliqué quoi donc donc di ñaan ndimbal si loolu quoi mm-hmm. Mm-hmm. merci beaucoup Abdoulaye njur ñu lay sant di la gërëm may fàttali membre euh, ci directoire PLD euh, parti des libéraux et démocratiques et démocrates And Sukkali nekk itam coordinateur de la fédération des enseignants responsables des jeunes euh, ca Thiaroye Gare ñu lay souhaiter bonne chance yal na la Macky Sall mm-hmm. di la sant bu gërëm di gërëm bu baax aussi Adama mu féetoon ci cabine technique bi di gërëm mbokk déglukat yi di leen jox dig daje mercredi bi di ñëw même heure même fréquence